muy site internet bi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma ñoo koy saytu fii ci jumaay Tuubaa ji mu ciy jàllale ay njàngale yu bëree bëri yu wuute bokk na ca njàngale yooyu muy ñuy waxtaane lu jëm ci jaar-jaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ci ànd ak yéen la sànq bu ne ci weer wi jataayu tey bii nag mooy ñaareelu jataay bi incha allahu taala ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ci doon waxtaanee jaar-jaar yi yonent yàlla bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa sallam bind ba la weesu doon nañ waxtaane ci askanu yonent bi tàmbalee woon ko ca Adnaan di wax ba ci waajuram Abdullahi waaye it indi wax yi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko ci lu jëm ci wàllu askanam ci ay maamam indi woon ci teqantal yi nga xam ne ci tënk wax nañ ko ba tey jotaayu tey bii dañuy àggale askanam woowu u tedd woowu nga xam ne euh, bari na ci borom xam-xam ñu ci bind ay téere mu doon loo xam ne lu yaatu la mën nañ ne ñaar fukki maam yooyu nga xam ne mooy yi gën a siiw kenn ku ci nekk manees naa waxtaan ci moom ab jotaay ngir ne kenn ku nekk ci ñoom moo nekkoon sangu jamonoom ci mbaax ci yiw ak ci melo yoo xam ne nii melo yu rafet la loolu lépp nag ndeke suñu borom da doon waajal nga xam ne moo war a xett li mbindeef yëpp gën ci nit ñi moo tax mu tànn ci askanu arab te ñiy nettali ci wàllu askan nee nañ mboolem askanu arab yi ñi nga xam ne ñoo askanoo ci Ismaayil ñooy askan wi nga xam ne ñoo ci gën waaye ñi askanoo ci Ismaayil it ñi ci gën mooy waa Banu Hashim te yonente bi sallallahu alayhi wa loolu mooy junj gam doon junj naan man ab tànneef laa ci biir tànneef ci biir tànneef loolu mooy wax jooju nga xam ne moom la waxoon euh, askan wi ñu bokk nag ñu ngi leen dàkkantale Banu Hashim Banu ñu ngi koy dàkkan ñu ngi ñu ngi ci jublu Hashim mi nga xam ne moo jur Abdul Muttalib euh, tey nag dafa am lu ndaw rek lu ñu bëgg a leeral ci diggante Abdul Muttalib Abdullahi ak soxna Amina bindu tey bi man naa ne ci tomb yooyu lay tënku ndax ñooñu ñu riis lañ ñoo xam ne ñu mat a xam lañ euh, Abdul Muttalib mi nga xam ne Hachim moo ko jur te waxoon naa ci moom lu sabab turu Abdul Muttalib gi moom suñu borom daa def rek mu ñëw ci jamono ànd ak wegu daa ñëw rek wegu lool ba bi mu ñëwee ci jamono sax lañ ko doon woowee sayba ngir bijjaaw boobu nga xam ne moom la judduwaale waaye yàlla def jëmm ji am xëy lool mu nekk nit ku njool koo xam ne ni ku nit ñi soppoon lañ ku joxoonub cër la ci bannu Haasim waxuma la bannu Haasim sax waaye mën naa ne xuray si gépp ak màkk di ko diglu ci lu bare bare bare junjoon naa keroog it ne bokk na ci li gën a rëy ci ay jaar-jaaram moom Abdul Muttalib muy gas gi nga xam ne moom la gasoon teen boobu ñuy wax biiru Zamzam ndax biiru Zamzam mbokk yi euh, Seyduna Ismaayil ak waajur bu jigéen Hajar ci la ndox mi sababoo ndax buñ demee ci histoire euh, ci téere boobu ñu woowee al bidaayatu wa nihaaya bu ibnu kasir day nettali ne euh, Seydina Ibrahim soxnaam soosu di saara dañoo yàgg lool te mënuñoo am doom muy saarata mujj gi saarata ci mbaaxam ak ci ëmbal gu mu cofeel Seydina Ibrahim mu proposé ko ne ko te moo denc Hajar bi mu dencee Hajar rek suñu borom wërsëgale ko doom doom jooju mooy Ismaayil waaye saarata ci acte bu rafet boobu mu def ak mbaax boobu suñu borom moom it wërsëgale ko doom muy Isxaaq kon day mel ne ñaari soxna yëpp mujj nañ am ak njaboot ci loolu ci la ko firaange jigéen duggee rek moom daal mu sàkku ci Ibrahim daal mu tàqale ko ak Hajar maanaam kër gi loolu nag ci Ibrahima gàddaaye dem ci suuf soos ñuy woowee Xijaas ànd ak doomam ji Ismaayil ak soxnaam soos di Haajar booba Ismaayil tut tànk la fa mu tëddoon nag aw mar di ko fa xaw gaañ muy mar bay yuuxu bay jooy di wéqi tànk ya ndox ma fa ball mooy ndoxum zam-zam Ismaayil moomu maam la ci maami yonent bi fi ne bu ñu weesoon àddunaan ci yeneen yi dañuy nettali nettali ba ca Ismaayil teen boobu nag daa mujjoon fatt nag waaye Ismaïl ba mu fa nekkee moom it xabila bu ñu naan jurhum ñoom ñoo ñëwoon jàppale ko ci ndox moomu noonu moom yaayam boobu sax moom tànk la xamu ci yooyu dara ba mu demee ba màgg it xabila boobu ñu naan jurhum ñoom ñoo ko may soxna soxna sa histoire bu guddi la sam ca jëkkër denc nam tàggoog moom sam dencaat ñaareel bi ci ndigalul Ibrahima waajuram ak fañ yegg loolu lépp ab histoire la bu yàgg yàgg yàgg bu gudd gudd gudd euh, ci loolu teen boobu noonu teen bu barkeel la kon boo xam ne ci tànki yonentu yàlla ismaila alayhi salaam ci la balle teen bi nag dafa sakk nag diggante bu yàgg sakkoon abdul mutalib benn doom la amoon ci njëlbeen gi ñu naan ko xaaris mu tëdd guddi gént ñu tegtal ko teen bi fi mu nekkoon waaye tegtal koy ni muy def ba nga xam ne bu ko gasaatee ndox dana génn keroog bu ñu koy gas nee nañ sulli na wurus yu baree baree baree bari ak ay ngànnaay ak ay jumtukaay yu baree baree bari yoo xam ne juruxum ñoo suuloon sakk ko loolu ci baax baax yi Abdul Mutalib bi bokk na ci asxaabul fiil gi alxuraan di nettali nga xam ne Abraha ba mu ñëwee ne day màbb Kaaba ga waa Màkk yëpp ñëw ci Sayyidu Xurays muy Abdul Mutalib na ko waxal ci Abraha mi ñëw di màbb Kaaba gi mu ne leen génn leen ca bàyyi néeg bi ak borom néeg bi am na borom borom dana ko wattul boppam loolu it ci mbaax mbaax yi nga xam ne Abdul Mutalib fekk na ko euh, Abdul Mutalib ginnaaw bi ku njabootoon amoon na lu mat fukki doom am na ñu sax ëpp na ko waxoon na misère gi nga xam ne da koo miséroon ne bu amee fukki doom dana rend benn bi sant ko yàlla ndax arab bi li leen gënaloon ci njaboot mooy doom ju góor mooy nekkoon li nga xam ne moo leen gënaloon gënaloon moom lañ doon ñaan doomam yooyu xaaris mooy ab taawam xaaris moom euh, ci jamonoy Abdul Mutalib la faatu bokk na ci doomam Abu Talib li nga xam ne mooy waajuru Seydina Ali ak Seydina Jaxfar na Abi Taalib bokk na ci njaboot tamit Zubayr bokkut ak Zubayr ibnul Xawaam yi nga xam ne saxaaba yi la bokkoon bokkuñu bokk na ci njabootam moom euh, Abdul Mutalib Abdul Uzza moom la ñu woowee Abu Lahab bokk na ci njabootam Mus'ab moom lañu ñu woowee Tidaaq bokk na ci njabootam al Muqawwam bokk na ci njabootam Qasam nga xam ne moom bi muy doon xale la faatu bokk na ci njabootam it Abbas moom mujjoon na tuub mooy waajuru Abdullah ibnu Abbas bokk na ci njabootam it ki ñu doon dàkkantale asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muy Hamza waaye bokk na ci njabootam it Abdullahi mi nga xam ne mooy waajuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ne xisab rend gi nga xam ne ba miséré eh, na mujjee ba Abdullahi mucc suñ bind bëlee nettali woon nañ ko ci waaye bokk na ci njabootam bu jigéen moom Abdul Mutalib Ummul Hakim mi nga xam ne maam la ci Seydina Ousmane muy ñetteelu xalifa ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ñëpp may tudd bàjjenu yonent bi lañ am na ku ñu naan xaatika xaatika moom it ci doomi abdul mutalib la bokkoon bokk na ci barra bokk na ci umayma mi nga xam ne mooy yaayu abdullahi ibnu jaxsin ak sayna bintu jaxsin nga xam ne ci soxna yi ku tedd ki sallallahu alayhi wa la bokkoon bokk na ci ci njabootu abdul mutalib bu jigéen gi safiya Safiya mooy waajuru Zubair ibn al-Xawaam mi nga xam ne ci al-asharatul mubashirina bil janna la bokk waaye bokk na ci njabootam gu jigéen gi it kuñ naan Arwa moom it ci njaboot gu jigéen Abdul Mutalib bi ci la bokk Abdul Mutalib nekkoon nit kuñ yëg lool kuñ jox cër Abdullahi nag la yàlla defoon mu gën koo bëgg ci njabootam li ko waraloon mooy melo yu baree bari yi nekkoon ci Abdullahi melo yi biir ak melo yu bitti. melay bitti yi bokk na ci mooy taar bu ko yàlla defaroon ak leer goo xam ne boo ko xoolee rek da nga ko daal di gis ci moom melay biir yi bokk na ci muy jikko ju rafet xol bu rafet ak dëggu ak lewet goo xam ne ñëpp dañoo maasoon bëgg ko ba ñun bokk leen bàyyi sax euh, bi nga xamee ne abdullahi mii dem na ba nga xam ne mat naa am soxna toll ci fukki at ak juróom ñett comme ni ko lenn ci nettalikat yi nettalee wax nañ ne sax bari na soxna yoo xam ne bëggoon nañu abdullahi denc leen ngir Abdullahi ni mu meloon ci ay meloy biir yu rafet ak meloy bitti yu rafet waaye Abdul Mutalib joxu ko ci woon ndigal Abdul Mutalib moo waaxul boppam ba ca famille ba bu ñu woowee benn Zahra ñoom it di ay nit yu jox war ma di ay nit yu am personnalité lool ka fa nekkoon nag di waajuru Amina mi nga xam ne mooy waajuru jigéen yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne boo doon xool càllale gi moom it day dem ba ca kilaat maanaam day mel ne kon Abdullahi mi nga xam ne mooy waajur yonent bi ak soxna Amina ñoom ñaar ñoo bokki maam nee nañ Abdul Mutalib bi muy dem dafa jàpp ci loxob euh, Abdullahi ànd ak moom dem ba nga xam ne àgg na ci famille boobu ñuy woowee Banu Zahra bi mu fa àggee mu fekk fa ka nga xam ne mooy sayidu Banu Zahra sangu Banu Zahra nga xam ne mooy seen kilifa wax bin ibn abdul manaaf mu waxtaan ak moom ci doomam jooju ñuy wax amina soxna amina it yàlla defoon ko koo xam ne ni ku wegu la woon lu jiitu lislaam it wax nañ ne euh, soxna la woon soo xam ne daal daa bëggoon lool ak yiw dañuy nettali sax bu ñuy melal jëmm ji dañ naan xar kanam gi xamuñu nu mel ngir ni yiw woon ci wàllu col rafet jikko lool moom it dañuy nettali sax ne mooy kii gënoon ci askanam Abdullahi mi it nekkoon ku gën ci askanam moo tax Abdul Mutalib bëgg gun bëggoon Abdullahi moo doxal boppam dem ba ca benn zaara waxtaan ak ñoom ci mbir mu Abdullahi mi bi nga xamee ne jubu nañ ci ay kaddu juboo nañ ci ay kaddu ci lañ fas sëy bi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax lu bari naan man day samay maam ñëpp ci sëy bu law bu fasu bu bu wér lañ lañ lañ leen fase donte sax jaahil yi ñoom baaxul ñu mën a def loolu waaye yàlla dimbali na ko ba ci maamam yëpp ci sëy bu wér lañ leen fase kon ci la diggante bi fasoo ci diggante Abdullahi ak soxna Aminatu mi borom xam-xam yi nag dañoo wax lu bare bari ci diggante bi ñuy woowee ahlul ahlul fatra mooy ñi nga xam ne ñoo ñëw diggante bi yonente maanaam seen seen dund daal fekk yu ñu yonente ñoo nañ fekk bu yonente jàll bi ñuy faatu it yonente bi ñëwaat fekkuñu ko fi ñoom lañu ñu tuddee ahlul fatra ahlul fatra nag euh, borom xam-xam dañ cee wuute bu ne taarif bi moom lu ëpp ci ñoom nii lañ ko taarifee mooy ñoo xam ne wàll ci misaal mooy ñi doon dund ci diggante yonent yàlla Isa ak yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne diggante Isa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na juróomi téeméeri at ak lu teg wala mu jege ko ñooñu la ñu tuddee ahlul fatra ahlul fatra nag dañ cee defaat ay jàngat yu bëree bare bëri ku ci mel ne imaamu suyuti nga xam ne moom xuus na ci wax ci lu bëree bëri dañ ne ahlul fatra ñoom bu fekkee lamboowoon nañ jikko yu baax nekkoon ci mbaax ci niti àjjana yi la ñuy bokk lu bëree bëri ci borom xam-xam yi fekk ko ci waxam jooju nga xam ne moom la wax moom al imaamu suyuti euh, wax jooju it fi ko teg mooy wax yàlla ji ne wa maa kunna mu'addibina hatta nabhasa rasula ñun yàlla day duñ dugal kenn yenn nit feeg yëgaluñ ci ñoom ay ndaw yoo xam ne dañ leen di jàngal imaam suyuti yi waxam jooju ñu bari ci mu mufassiruna yi ak eh, ñuy gëstu ci xam-xamu tawxid ànd nañ ci moom lu jiitu sax muy wax loolu muy ahlul fatra nit yi àjjana la ñu doon bu fekkee ne dañoo nekkoon ci njub waa xijaas gii nga xam ne waa xorey si nag di maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalikat yëpp nettali nañ ne ñoom dañoo nekkoon ala diini Ibrahim dañoo nekkoon ci yoonu yonent yàlla Ibrahim maanaam ci diine jooju lañ nekkoon li tax loolu mooy euh, Ismaayil yàgg gun doon foofu ca Makka dafaa def ay jeexit ba nga xam ne ñu bari ci nit ñi nga dañoo toppoon diine ji nga xam ne moom la andi woon ca Ismaayil njàngaleem waajuram yonentu yàlla Ibrahima la doon jàngale looloo tax wax yi bari ci lool te wax jooju mooy ji ci gën a siiw man nañ ne ñu ëpp ñi gën a siiw ci borom xam-xam yi sax euh, wax jooju ci lañ tënku donte sax am na yeneen ahadis yoo xam ne dafa wadd ñu bari ci la ñu sukkandiku euh, kon koo xam ne ni ab woote agut ca moom niti àjjana la ñu doon looloo tax ñu raafaale ci maam yonent bi ñi nga xam ne nii ci ahlu fatra lañ bokk ba ci abdullahi mii nga xam ne fekkewul woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci soxna amina mii fekkewul woote bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ne ñii kat ci waa ahlul fatra la ñuy bokk mooy ñi nga xam ne woote bi fekku leen fi te it beneen dalil bi ci toppaat mooy ñoom kenn xamuleen woon ci jaamu xiram kenn xamuleen woon ci jikko yu ñaaw wala jëf ju ñaaw kon loolu lépp day gën a dëgëraatal wax ji nga xam ne al imaamu suyuti wax na ko al imaamu tabari nett na ci tafsiru tafsiram bi ci bi mu àggee ci wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda nee na abdullah ibnu abbas nee na abdullah ibnu abbas abbas mi tudd léegi ne ci doomi abdul ci la bokk maanaam kon abdullah ibnu abbas eh, doomu bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañ doon woowee abdul umma maanaam fóoréew xeet nee na aaya bii nga xam ne borom bi dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ëllëg yowmal xiyaam suñu borom dana la joxe xéewal ba nga sant ko ba nga dégg nee na ba nga sant ko googu mënees na ciy déggee ne ku bokk ci moom ca daawut jaanu xeram niti àjjana la ñu doon loolu Abdullah ibn Abbas moo ko wax waaye it bokk na ci wax yi nga xam ne danañ ko dëgërloo ci ne waajur yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay niti àjjana lañ ak imaamam yëpp mooy wax ji borom bi wax ne innamal musrikuuna najasun yàlla nee na ñuy bokkaale ñëpp ay niti sobe lañ moo tax borom xam-xam yi daal ne niti sobe ëpp na ñuy jël ci askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen boole ci niti sobe kon yonent bi askan woon ñëpp ay nit lañ yu teey nit yu set nit ñu baax loolu moom ci boppam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko wax lu bare bare bari naan ana xiyaarum min xiyaarin man di tànneef laa boo xam ne damaa bàyyi ko ci ay tànneef sëriñ bi it Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu wax na ci lu bare bare bari ci ci warma joo xam ne waxuma la waajur yonent bi sax waaye maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xasida nga xam ne tudd nañ ko suñu bind bële mu tudd ci ñaar fukki maamam yëpp bu ci nekk muy tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ca kenn waaye it ci yeneen bind yoo xam ne nii tudd na ko tagg leen ci ñoom maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fa taaba xaladi ala lasi wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi foofu dafa wax ne yàlla su borom mi nga xam ne amul doom yàlla mi nga xam ne amul waajur moo ko defali xéewal moo ko jariñ ci lu bare bare bare bare ci barkeb jëmm ja nga xam ne moo gënub judd ñëpp waaye it gën ay waajur ñëpp gënub dëkk ñëpp waaw kon yonent bi sallallahu alayhi saxal na ne ay waajuram ñoo gën ñëpp Euh, mbokk yi kon ñooñ ñooy waajur yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne fas nañ diggante boobu nga xam ne mooy diggante Abdullahi ak euh, soxna Aminatu te wax naa léegi ne soxna Aminatu bari woon na ci téere yi yaakaar naa Ibnu Isaaqa nettali na ko euh, koo xam ne nii maanaam oxtu la ci Waraqatu mu Nawfal nekkoon jigéen joo xam ne nii mi ngi woon ala diini Ibrahim fonkoon lu baax lool loolu dañuy nettali ne soxna soosu mas naa ñaan wala mas naa proposé Abdullahi mu denc ko te wax nañ ne li taxoon wax ko loolu mooy leer goo xam ne ni da koo gisoon ci Abdullahi kon yàlla suñu borom yàgg naa def leer ci waajur yonente bi alayhi salaatu wa bi nga xamee ne diggante bi fasu na ni ñu waxee woon ne Abdullahi fekkewul woote bi. man nañ ne bi nga xamee ne soxna Amina toll na diggante ba tolloog ñaari weer rek ci la Abdullahi wàccum liggéey euh, ca barab boobu ñuy wax Abwa wax nañ ne sax fa ko denc ci diggante boobu ci la nekkee ci ay situation yoo xam ne moom soxna Amina yu xaw a métti la ci waxin waaye Abdul Abdul Mutalib nii ci cofeel gi nga xam ne amoon na ko ci Abdullahi ak mbëggeel gi nga xam ne amoon na ko ci ak fonkeel goo xam ne amoon na ko ci. wax na ne sax bu masaa toog ci kippaaru kaaba gi ba njabootam gi yëpp wër ko day laaj ci ana abdullahi day ñëw mu jegeel ko boppam teg ko ci wetam léeg-léeg sax bu fekkee ne dafa toog foo xam ne fu kawe la ñi ko wër ñëpp toog ci suuf nee nañ daawul nangu abdullahi moom toog suuf da ñëw rek teg ko ci kawam wala mu ko ci wetam loolu lépp cofeel goo xam ne nii amoon na ko ci moom ci cofeel gi it li ko waraloon rek mooy suñu borom moo tëggiwoon jëmm ji jëmm tëggin loo xam ne ku ko gis rek boo xoolee jëmm ji da koy daal di sopp boo jëflantee man da koy daal di sopp ci loolu lépp li ko waraloon mooy yàlla suñu borom moo doon waajal waaj boo xam ne nii day mel ne ca alastu rabbikum la ko la ko waajale woon ba mu dajalee ruya waaye waajale ko it bi aadama ñëwee waajale ko it ci càllal ak ibrahim waajale ko it ci càllal ak ismail waaye waajale ko it ci abdullahi mii kon melo yii nii moo nekkoon ci moom moom abdullahi sayyidatuna Amina mii bi nga xam ne Abdullahi wàcc ni liggéey soxna Aminatu sa Abdullah Abdul Mutalib moo ko doon taxaw ci lépp loo xam ne nii soxla woon na ko am na ci njabootuk Abdul Mutalib gii nii ñoo xam ne ni fekke nañ woote bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ku ci ne Hamza mi ma tudd am na ci ñoo xam ne fekke nañ woote bi waaye tuubuñu kon keroog ba yonente bi wootee rek boobale ahlul fatra jeex ñi nga xam ne wuyu si nañ ko ñooñu dañ leen di boole ci ñi nga xam ne ay jullit lañ ña nga xam ne wuyu si wuñ nag ca fekke woote bi ñooñu ay yéefar lañ ko ci mel ne Abu Lahab mii nga xam ne yàlla mi ngi koy tëkku ci alxuraan ñi nga xam ne lu jiitu woote bi faatu te ñoom ñëpp ñu nekkoon ci niñ ko waxee léegi ala diinu Ibrahim te ñu woowee ci siira alxunafa mooy ay nit yoo xam ne nii daal lu baax rek moo leen ñor duñ jaamu xërëm duñ wor duñ dugg ci ay jikko yu ñaaw ñooñu dañu wooy alxunafa ku ci mel na ñoom sax bu ñu nettali woon naan ku ci mel ne waraqatu ibnu nawfal ak ñu bëree bëri ci arab yi kon ñii nii mooy ñi nga xam ne ñoom lañu ñu wooyee ahlul fatra soxna aminatu mi it ma nga xam ne tudd naa ko moom it ci ahlul fatra lañ koy boole kon ni ñu waxee ne ñu ko jiitu woon ci la ndax lu jiitu woote bi moom ci la wàccu liggéey bi nga xamee ne toll na ko diggante ci ñaari weer yooyu moom moo wax ne moom soxna Amina ci ay nett yoo xam ne ni téere siire yëpp wàcc na indi nañ ko moo ne bi mu tollee diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam li jigéen di yëg li jigéen di baaxoo yëg bu tollee diggante ci xeeti coono ci xeeti tawat ci xeeti yeneen ak yeneen ak yeneen yàlla musal na ko ci ba ci dara moom daal li mu ay kiimaan ak i yoo xam ne mi ngi ko doon feeñu diirub li nga xam ne mi ngi tollu diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk soxna su baax su yiw soo xam ne nii tànneef la ci biir tànneef tànneef la it ca askan wa bokk ndax buñ koy dàkkantal ci tiir yi sax dañ naan moo nekkoon soxna soo xam ne nii moo gënoon ci askanam ci moo gënoon ci fan ci askan waaye moo ci gënoon ci wàllu judd ak jikko kon bi nga xamee ne suñ borom dogal na diggante bi am ci la sallallahu taala alayhi wa sallam feeñ ci euh, soxna Aminatu moom gane gi mu gane woon nag mu doon kiimaan yoo xam ne nii yu yéeme la yoo xam ne nii euh, nettalikat yi nga xam ne dañuy nettali siira ak ñi nga xam ne dañuy nettali taarix wax nañ ci loo xam ne nii ba nga xamee ne aadama sosu na ba suñu jonn yàlla tey jii mu mosuñoo gis gane ak jamono gu mel noonu mu doon loo xam ne nii bindu boppam lañ koy wutal insha allahu taala waxtaan ci waxtaan bu yaatoo yaatu ndax suñu sëriñ Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim nett na ci ci gës bu lu bare bare bare lu yaato yaato yaatu ca gën a jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon euh, Abdul Mutalib man na ne li ëpp ci maanaam mbir yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw na ko ci taxaw bu rafet a rafet moom moo ta moo fas diggante sëyub diggante Abdullahi ak Amina moo ko dox moo ko wax te it moo taxaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gënee jamono te bu ñëwee ci gën a jamono danañ ci indi lu bëree bëri waaye turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Muhammadu gi it moo ko joxe yàlla it def mu bokk ci biir xunafaa yi bokk ci ñi nga xam ne nii dañoo seexlu woon lu bon waaye dañoo seexlu woon it jaamu xërëm nekkoon koo xam ne it mooy yilifoon kaaba gi maamam yooyu noonu ñuy wax lu tàmbale ci Adnaan ba ci Abdul Abdul Mutalib mii nee nañ kenn ku ci nekk ci ñoom yaa nekkoon sa sambub janan te yaa doon liggéey liggéey yu rafet yoo xam ne nii ak taxaw yu am solo yoo xam ne nii yaa ngi def ci kaaba gi taxaw it ñi nga xam ne dañuy bàyyikoo ay bërëb yu soree sori ñëw di siyaare si kaaba gi looloo tax suñu borom taw féexal ko bu baax a baax a baax muy dëru sam-sam yi nga xam ne nettali naa léegi ne euh, ci ay loxoom la feeñe kon mbokk yi lii ci gàttal rek mooy askan askanu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu nekk askan woo xam ne nii askan wu tedd la tànneef ci biir tànneef yi ndax ne nañ arab yi ñi ci gën gën ci ci arab yi ndax dañoo bëree xeet lool mooy ñi nga xam ne ñoo sotti ko seeni càll la moo dem direct ci Ismaayil mooy ñi nga xam ne ñu ngi gën ci arab yi nit ñi mu doon loo xam ne nii buñ ko toppee mën na ci bare bare bare baax la moo tax dañuy yemani suñ ñëwaatee nag wutal jataay boo xam ne nii jataayu gën a jamono gi lay doon ak taxawaay yi nga xam ne abdullahi taxaw na ko ko abdul mutalib taxaw na ko amina ba nu mu gënee jamono ak réaction yi nga xam ne waa mag def nañ ko keroog bi mu gënee jamono moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xeeti kiimtaan yi nga xam ne mooy yu gën a fés ca ko euh, moo feeñoon keroog bi mu gënee jamono moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ca makkatal mukarram mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yaqulu ummati arham xayra man rahima.